légat ah, yaa ngi noonu avec avec avec ba léegi mbokk yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net gis ngeen bagage yaa ngi noonu di ñëw ndànk-ndànk saaku yaa ngi ñëw de te ay saaku yu mag la de saaku yaa ngi noonu caatu foora Kallı devamlı Gel nam segi dur ya. Jaw xalal gaay ñu ci dina wax. Bu xal la. Sigi waay. Ma leen leen fàllu waay, fàllu. Xal leen fàllu. Mu yaatu waay. Jël abu, jël abu, jël abu. Jël ñu. Pero fàllu ñu bu doon ay bëgg rek waa di nga fàllu. Dañ leen baase la. a ah. sëñ Xaadim a ngi noonu di sët Serigne Touba direct sëñ Xaadim a ngi noonu moo ngi noonu di génn ñu fi duggee nag yàgg na nag waaye moo ngi noonu di génn sëñ Xaadim gaa yaa ngi koy siyaar sëñ Xaadim cey leeral TV sëñ Xaadim a ngi noonu nee na ñibbi xam naa def na li muy def ba pare si te gis ngeen mbokk yi sànq bi muy dugg sëru la sàngoo